de Bambou. Avec toute la délégation que vous conduisez, nous vous souhaitons la bienvenue et toutes les chances de gagner les élections du 24 février 2019 et au premier tour. Président, bi ñu dala dalalee ba pare dañ lay promets de tenir parce que nous rappelons rappelé en 2012 fii ci terrain bi y a ay dige qui fi defoon remplir nos combats ba mu mat sëkk dañuy wax na nag politique est koy def ak leader que top. topp njëriñ dit moo tax ñu lay top. comme il def na nga matal ko incha allahu rabi c'est élection yi Koungheul danañ maase 100 pour cent sa ginnaaw élire au premier tour au soir du 24.

ndool dina jeex biir Koungheul ñu ngi lay sant di la gërëm ci loolu président lépp li nga xam ne ëmm nga ko jëmale ko Koungheul te ñu ràññee ci Promoville ñu ràññee ci tamit sunu réserve animalière bi loolu yëpp ñu ngi ñaan ñu àggali ko accéléré ko ba waa Koungheul yëpp jëriñu ci suñu commune bi nag suñu commune bi nag aussi Nous nañ suñu projet accéléré ko am nañ ay difficulté pour compléter ce stade bi ay problème la Nous nañ aussi que dimbale ñu suñu stade municipal Nous ñu finaliser ci nu mu avec l'appui du ministre de l'économie et des finances et du plan Nous ngi lay ñaan tamit li nga xam pour assainir la ville de Koumel. mu nekk un important projet Nous ba nga xam appel d'offres offre bi sax def nañ ko ñu parce que kat am na un investissement de 2, de 2 milliards boo xam président def na pour traiter ndox bi nga xam ñun ñokay koy naan fii ci kungal muy usine de déferrisation bi nek Touba Touba Kungal lool ñu ngi la ci sante ah, di la gërëm président Promoville war na àggali aussi ay mbébétam war na àggali ay action fi ci kungal dañuy yaakaar ne lépp loo xam ne ko ci sa premier mandat bi suñ ko àggalee ci deuxième mandat bi Koungheul ku ci nekk dina ci gis boppam yéen waa Koungheul nag su ngeen buggee su ngeen buggee seen biir wàññi ngeen bàyyi toggee matt da ngeen di voter président bi bu exploité gaz bi defar ay gazoduc di ngeen toggee gaz ci seen biir kër di ngeen courant dina moins cher bu ngeen di passé dootu leen utiliser courant ngeen di togg di utiliser courant dina une suñu gàncax bi dina la suñu environnement bi